Ce matin, j'ai vu des et hier et aujourd'hui, j'ai vu euh, des leaders de Yewwi yu défiler au niveau de trucs euh, de Ziguinchor. Ça a commencé euh, par Malick Gakou, Déthié Fall, euh, Aïda Aïda Mbodj. Ce matin, on a vu Aminata Touré, Cheikh Tidiane Dièye démb aussi bokk na ci. Pourquoi Khalifa demul Ziguinchor comme ses comme ses homologues de Yewwi? Déjà, mais di nuyu Ngoné jàmbaar et puis. à force ñuy couvrir on, on développe des liens. Mm. ñu koy ci liggéey bi muy liggéey et puis di ko encouragé. man mo sama interpellé moo tax j'ai essayé de savoir j'ai essayé de joindre Khalifa jotuma ko et puis je me suis reporté sur un autre leader en l'occurrence Moussa pour ne ko que lu tax euh, dem leen seeti xalifa Khalifa dem leen seeti Ousmane Sonko parce que sunu mag la et puis ku ñu am yéene ci moom la. donc il m'a expliqué que euh, en réunion de Yewwi lorsque la proposition a été faite parce que vraiment tous les leaders dañu bëggoon dem à Ziguinchor pour soutenir Ousmane Sonko c'est Ousmane Sonko qui avait exprimé la volonté ne c'est pas la peine que kenn di déplacé donc euh, ñi dem c'est des choix individuels qu'ils ont fait mais en position de groupe en réunion de Yewwi Ousmane Sonko avait dit que na ñëpp bu kenn mën a ñëw donc c'est pour ça que je sais que Khalifa Sall alors nii xale je sais que euh, bu ñu nekkoon situation normale Barthélémy Diaz kenn du ko fa kenn du ko fa jiitu est-ce que aujourd'hui <laughs> Diaz de Khalifa euh, d'un des membres de, de Taxawu Dakar est-ce que matérialisé wul la fissure qu'il aujourd'hui entre Pastef et Taxawu Dakar parce que situation bi bu bu nekkoon ne yéen a ngi nekk ci entente parfaite euh, bi ngeen nekkoon xalifa Sall mun na bañ a déplacé wu mais Barth Barthélémy Diaz aurait le déplacement. Barth vient d'arriver man bi may dugg si maa ngi wax ak moom il était en mission il vient de rentrer de de de Paris euh, xam nga loolu daf ñu daf ñu mës dal mooy meeting bu Ousmane Sonko njëkk def Kër Massar boobu Barth était en mission et Khalifa Sall nekkoon déplacement dans le pays et mu indi woon interrogation yu bëri donc. Euh, sëñ décidé woon ne à partir organisation bi ñu jël mooy su fekkee xalifa ak baat il peut mettre être à Dakar au moins ñoom ñaar dem mais bu fa kenn nekkulee aussi na kenn si ñoom jéem a dem parce que il faut pas donner l'impression à nos amis du PASTEF que que c'est vrai que ñun on est candidat c'est vrai que ñoom candidat lañ une fissure wala décalage entre ñun ak PASTEF amul absolument rien entre ñun et les du PASTEF euh, tey Khalifa Sall demul parce wax Barthélemy mi ngi door a ñëw certainement que il a eu Sonko au téléphone ou essaie de joindre mais je sais que en tout cas ñun au niveau de Taxawu Sénégal pour même même après ce qui s'est la dernière fois amul benn sorte de sentiment dañuy faral di wax ne que ñun dañ fi jaar tey militant passif bu ñu meree war a am lu leen metti wala am lu leen naqari ñun xam nañ ko parce que on a vécu ça le jour on a condamné Khalifa Sall pour cinq ans metti woon na trop si ñun et li ñu doon def mooy pour ñun tout it monde était des traîtres le parti socialiste ay traîtres la ñu waa PS ñu doon ànd Khalifa Sall ay traîtres la ñu Khalifa Sall mu doon jàppale ci mairie bi ay alliés politiques ay traîtres la ñu quand on a avancé un peu plus tard ba élection présidentielle bi jege si nga gis yenn maires yi commencé rocceeku di dem rejoindre le camp présidentiel on les a traités de tous les noms donc ils souffrent et ñun dañu xam loolu li ñuy dund et on les comprend moo tax lépp lu mënti am rek ñun on a l'expérience le recul pour aller au-dessus de ça et je pense que loolu mooy sentiment bi ñu anamee mais on pense très fort à Ousmane Sonko on le soutient dans cette épreuve euh, parce que politique dafa metti on soutien total un soutien ferme un soutien total ah, ferme sans équivoque sans, sans équivoque réserve. sans réserve